six bi sànq wax nga waxu euh, départ à la retraite magistrat yi mais yow mi nekk acteur judiciaire yan yan benn réforme bu essentielle wala yan réforme yu essentielle lañ ci war a def ci ni justice bi di doxee nomenclature judiciaire bi justice bi di muy doxee justice bi mu ngi dox normal seulement réforme boo xam ne dina ko gëna a man réforme bi ngay def nga ban xam nga tribunal correctionnel ba fa yóbboo nit mu sàcc la ba mu def jaaxum bu rëy ñu àtte àtte ko bàyyi ko relaxé ko léegi yow partie civile nga. yow mi ñu sàcc. yow mi ñu sàcc procureur bu def appel yow dee nga c'est pas normal. kenn du ko àttewaat ci culpabilité ci affaire sàcc bi est-ce que yoon la. dégg nga ne cour d'appel la lépp dañu war a àttewaat. loolu erreur boo xam ne maa ngi koy jooy boobu léegi. maa ngi lancé exertape Sall ministre de la justice mu demande loolu changé ko kaw assemblée nationale loolu sama programme la parce que en droit on appelle ça le principe dévolutif de l'appel appel boo déggee attewaat pour une mm. mais il suffit que nga la part civile procureur ba ñu def appel prévenu bi moom day kontaan kii sàcc bi ko bàyyi nañ ko. te yow d'accord ci kenn du ko attewaat affaire sàcc. affaire rek li ngeen ndàmpaay ngay laaj bu ko defee gi bi topp ñu ko sàcc dafay doxati dara. erreur bu rëy ngi noonu encore ci réforme judiciaire bu mag bu ñu war a boobu ba léegi depuis Senghor erreur boobu mu fi pour lan. ak ban. ak lan mooy nee naa sama programme bi ma amoon mooy ministre de la justice warul am. warul am. waratul am. Mhm. ndax depuis Senghor ba ci Macky Sall dañuy violer constitution bi. Hmm. xam nga lu tax. Hmm. la constitution proclame solennellement la séparation des pouvoirs mais yow mais yow noo mën na gisee yow may mun a ñu ne séparation des pouvoirs exécutif dina nommé magistrat yi. nommé procureur de rendre compte ministre de la justice. Mm-hmm. est ce que loolu jaadu na. non dañ ni ministre chargé de relations avec les institutions. moom moo war a. comme ça diggante moo war a diggante euh, di judiciaire di yóbbu ay courrier euh, waaw di dem di ñëw comme ni mu ñëwee par exemple projet de loi bu jógee. conseil des ministres. Mm-hmm. ñoo jox ko président assemblée. bu bureau assemblée siège bu ñoo toog. encore conseil supérieur de la magistrature dama koy dama koy dindi. loo fay teg conseil supérieur de la justice. xam nga lu lu tax justice du magistrat rek. magistrat dañu war a siéger conseil supérieur de la justice moom magistrat am avocat am greffier am notaire am huissier am commissaire priseur am expert. ñooñuy former la famille judiciaire muy le conseil supérieur de la justice ñuy ñu ñuy tabb magistrat yi di leen di leen di leen ci saytu comme ça ku def lu noonu conseil mooy rek sa dikk kuy war a avancer lu moo lay récompenser. conseil constitutionnel bi nag nga koy maintenir. oui. en l'état. conseil deful dara liñ ko def li ko loi bi def la lay def bu ñu ko woon doublon yi du ci dàq kenn du dàq kenn. mais mais mais mais xanaa. nañ changé loi yi parrainage bi dañ ko changé. nañ seet léegi nañ seet nii par exemple ñu yokk yokk par exemple parrainage bi yokk caution bi mais ñu bay am doublon parce que nag man man man d' accord naa ñun jëlaaj ba deux cent mille parrainage ma indi ko wala aw ma ko ma xam ne man aw ma deux cent mille personnes waru ma nekk président mais ah, El Hadj Diouf daaye dajale plus de trois cent et quelques mille parrain këram wër Sénégal denc ko déposé cinquante cinq mille tegal fukki junni ak benn yu ëpp liñ ko laaj ñu ne ko déedéet jamaatal da nga amee doublon yu bëri nañ wax kay léegi kuy ni par exemple trois cent mille deux cent mille même bu amee doublon da ngay jàll. waaw pour terminer maître yéen da ngeen ñuy fàtte. trente millions ñu yokk ba cinquante millions par exemple wala cent millions pour pour nit ñi bañ a bëri trop. xanaa amuloo pro sa programme yow jëloo ci en contre euh, la presse les médias. en ah, kay la presse à la culture. de la presse bi da nga gisee la communication. presse bi danaa danaa jàppale presse bi. Mhm. mais dinaa sanctionné. dina sanctionné lu ma nangooti presse boo xam ni. saaga rek lañ fay def di terroriser nit ñi di sos nit ñi yàq deru nit toog di yàq deru nit ku ko def tëj la. Hmm. il faut que peine ci diffamation ñu bàyyi ay six mois sursis ñu def. Hmm. dafa yomb trop boo yàqee deru nit boo demee tribunal. ñu ñu corsé ko. la règle c'est six